remercier tous les chefs de partie ici présents, d'y remercier ces personnalités politiques qui ont également fait le déplacement di sant mouvement yëpp yi nga xam ne ñoom lañu ñu àndal ci liggéey bi nga xam ne dara ñoruñu ci lu mooy taxawu ak liggéey ngir Sénégal ma leen di remercier bu baax parce que ginnaaw bi ñu ma joxee mandat j'ai rencontré le président monsieur le maire Khalifa Sall échangé nañu waxtaan nañu ñu yónnee ma charte bi may fàttali ne charte bi coalition bi amul tur on a échangé ma ne ko ñun coalition gëm sa ñu ngi lay sant ci loxo bi nga ñu tàllal coalition gëm sa bopp dinañu ànd ci la coalition de l'opposition parce nag gor ca wax ja te man Bougane sama kàddu démb mooy suma kàddu tey bu jaree di raxas saal bi ngir opposition bi jàkkaarloo ak Macky Sall daan ko dinaa ko def parce que mooy suma gëm-gëm nangu naa ñàkk fayda ngir lu dajale opposition bi waaye duma nangu mukk ku ma dëggaate li xew mooy le jour du lancement de la coalition de l'opposition ñaar fukki nit wala ñaar fukki nit ak benn vingt et une personnes je crois sinon vingt et une personnalités ñoo signé mais damay wax les Sénégalais parce que je prends le peuple à témoin amul kenn ci kilifa yi toogoon ci taabal boobu ci présidiom bi ku xam naka la coalition bi tudd parce que yónnee wuñ la ko amul kenn ku ñu ci jox logo bi nga gis ko parce que yónnee wuñ la ko amu ci kenn it koo xam ne jox nañu la couleur yi jëm ci coalition bi parce que kenn yónneewu la ko donc ci ñaar fukki nit wala ñaar fukki ak benn ya fa nekkoon jàpp naa ne ñaar dong ñoo jël décision boobu te loolu ba mu amee ba ma duggsee ci salle bi gis ko yéen la presse gis naa ngeen bidd ne Bougane Gueye génn na salle bi bi ma génnee ci salle bi comme vous l'avez remarqué le maire Khalifa Sall l'a également et ci la ñëw ne ma Bougane qu'est-ce qui se passe ma ne ko monsieur le maire lii du ngénte du gone gu ñuy tudd parce que bu ñu la invité ci ngénte bu ñu tuddee doom ji sa yoon nekku ci ndax invité nga nag waaye lii lu ñu bokk la lépp ñëpp ma su ko def lenn ñenn c'est pas possible lii ma gis mooy ne jël ngeen tur mais également jël ngeen ay couleur yegg ngeen ba ci logo sa veut dire que yéen pare ngeen soxlawu leen man àndu nawle lay ànd ak ay nit Khalifa Sall devant Malick Gakou Khalifa sal devant Barthélémy Diaz Khalifa Sall devant Kalidou Niass Khalifa Khalifa devant docteur Diallo mu ne ma Bougane lii danañu ko lijjanti après on va régler ça ma ne ko d'accord kon maa ngi leen di bàyyi ngeen dellu ci saal bi man ma dem mu ne ma déedéet dellu ci salle bi ma ne ko monsieur le maire mënuma dellusi ci salle bi parce que li ngeen fa def man ànduma ci ma ne ko ok kon maa ngi lay wax ci kanamu Barthélemy mii ak kanamu Malick gàkku ak ñi ma maa ngi delluwaat ci salle bi mais bu dee parole bu ngeen ma ko joxee duma wax bu dee signé bu may signé je vais signer sous réserve alors grande a été ma surprise aujourd'hui en réunion quand Khalifa Sall me rétorque Bougane signé ak réserve amul da ngay signé yaa ngi ci biir wa illaa signé wulo ma jàpp ne xëy na sëtam la doon waxal parce que signature sous réserve bu amatul xaw ma lan moo am ci réew may xamal rek askan wi ne leen lenn dong moo ma yitteel man Bougane Gueye bu ma xëyee ci lay dox bu ma yeewoo moom lay yeewoo ba ba may tëdd lépp loo xam ne mun naa daaneel nguuru Macky Sall jëli fi Benno Bokk Yaakaar ci loolu laa nekk waaye nag du ma nangu kenn di ma dëggaati du nangu kenn di ma foowee parce que mun na maa tuuti mun naa nekk xale mais du ma nangu ku ma yàpp durant la rencontre de ce matin moom Khalifa Sall parce que moom laay wax parce que bari na fa ñoo xam ne yàlla na ma yàlla bal ay yóbbaale lañu ku ñuy diri nag sañ na bañ a taamu fañ koy jaarale mais man bokkuma ci ñi ñuy diri ñii ma àndal ay gor lañ xarifa Sall m'a intimé l'ordre Bougane il faut retirer tes réserves ma ne ko monsieur le maire du ma retirer réserve bi parce que dama am ay nit ñu ma nawloo jox ma seen kàddu ma wax fi li ma xalaat mu nekk réserve kon explication yii nga ma jox man damay delluwaat ca ñoom mooy la grande coalition gëm sa bopp wax leen li nga ma wax alors li ñu ma wax lenn la dafa bari waaye parti yëpp booy xool verte moom moom mooy seen mooy seen couleur ma ne ko vert rek amu fa vert la weex la ak rouge mu ne ma du rouge rose la ma ne ko du rose magenta la pour parler en langage parce que lu ma xam la c'est quand même mon domaine ma ne ko mage la magenta parce que composante boobu moom la ñu jël boo ko tiiree boo ratee rouge nga jëm et je sais que c'est fait à dessan moom Khalifa Sall mu ne du ñu continuer di discuter ci loolu kon Bougane jàppal ne mësuloo signé ma ne ko kon jàppal ne mësuma signé les discussions ku ne joxe na fa xalaatam mais on se rend compte que c'était des choses figées parce que nit ñi wala ñenn ñi préparé woon nañu leen pour lool man nag comme duma politicien professionnel comme ñoom man waajuma wàccaalewuma waajuma leen parce que jàpp naa ne ay gor ak ay nit ñoo xam ne ay nawle lañu ñoom laa am leen parce que benn combat dong moo war a nekk suñu kanam naka lañu ñu mun a def ba jële fi Macky Sall ñi mu àndal ak coalition la ma waxoon tey laa koy waxaat jàpp naa ne coalition coalition moo koy gañe waaye coalition bu fekkee ne da ko war a gañe dafay ànd ak ay nit ñoo xam ne dañuy yaatu dënn parce que boo nanguwul bàyyi bëgg a jël lépp yëf bi du sotti te am na ku ma ko wax ci kilifa yi sànq ku bàyyiwul sa xalaat ci couleur ak logo bu ñu yeggee ci investiture du la bàyyi lenn comme ñun ñu réew mii dañu fee liggéey tey gëm sa bopp est devenu une réalité politique mënoo tudd ñaari opposant ci réew mii ñu sonal Macky Sall te boole woo ci Bougane Gueye tëdduma nelawuma maa ngi tibb tànk maa ngi xolli bopp lu nekk danaa ko def benn objectif dong am que Macky Sall et ses sbires dégagent loolu nag dañu soxla ay nit ñoo xam ne ay démocrate lañ c'est dommage bi ma ñëwee waxtaan ak waa grande coalition gëm sa bopp ñoom ñëpp ils sont unanimes comme ñoom def nañu communiqué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 yor nañu suñuy wagg bu ñu ca desee ñun it ñu continuer ak suñuy mbagg parce que nag gëm nañu ne bu ñu yeggee ci 23 janvier 2022 sénégalais yi danañu bàyyi xel yéene ak xalaat bi ñu indi ci collectivité locale yi kàddu gi benn la élection yii gëm sa bopp dana ci taxawal boppam la grande coalition gëm sa bopp danañu ci àndandoo taxaw ci képp koo xam ne nekkuloo ci politique politicienne parce que nag ñàkk démocratie du ci sàll rek politique politicienne bi bukki bi njur bi sàmba man defe woon naa ne kenn dong moo tax ma koy xeex ci Sénégal mais li ma gis man affaire u jinne la yëfu dëmm laa gis ah parce que man bugguma ay nit ñuy lekkante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 ñeneen ñi maanaam al toppe lañu heureusement que ku mel ni Déthié Fall am na fulla ak fayda tëgg ci taabal ji pour wan leen ne du ñëpp ñoo nangu ñu leen di yóbbaale. beneen point bi nga xam ne suñu génn réglé na ko parce que après présidence tournante boobu réglé nañu ko ba ñëpp mën cee kon suñu génn réglé na problème foofu. leneen li nga xam ne réglé nañu ko. mooy comité d' arbitrage dañ ne bu amee problème dafa am comité d' arbitrage boo xam ne moom moo nekk au dessus de la conférence des leaders comité d' arbitrage boobu ñi sooke mbir yi maanaam les initiateurs ñoom ñoo koy composé de encore maanaam ñeneen ñi duñ ci dara boobu tamit suñu génn tax na ñu xeex ko ba loolu dañ na beneen bi nga xam ne moo ci gën a garaaw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 beneen bi ci des ñu ne bu fekkee ne ñoom ñett ñi ñett ñi sos ba tey les initiateurs bu fekkee ne nekkuñu ci biir euh, kuréel googu fa ñuy tànne ñu ne dañuy xool ci élection bi ñu mujj def mooy élection présidentielle bi ko fa jël deuxième kooku mooy tànn waaw léegi ñun bu ñu toogoon ca loolu ñun kan la ñuy am ñun ak fan la ñuy am candidat ñun gëm sa bopp dem élection. waaw léegi ñun suñ toogoon ca loolu nu ñuy demee waaw mais heureusement que am na ci biir ñoo xam ne nanguwuñu ñu yóbbaale leen ba xeex nañ ko ba loolu dañ na alors c'est juste j'ai pris ces trois exemples pour que ñii ñi comprendre li may xeex li may xeex xeexu principe la. damay sàkku démocratie ci senegal kon duma nangu ku ma tënk duma nangu ku ñu jaarloo ci yoon rawatina nag bi nga xamee ne gor yu baax yii dañu ma jiital ñenn ñi mën a doon sumay baay ñenn ñi di sumay tante ñeen ñi di sumay mag ma gën ci ndaw ñu àndandoo jël seen confiance teg ko sama loxo kon du ma def dara lu leen di gàcceel incha allahu rabbi jàpp nañu ne daal élection yi ñu jëm incha allah danañu dem ñun ci bañeeru la grande coalition gëm sa bopp teewul nag tàllal nañu suñu loxo ñëpp képp koo xam ne jàpp nga ne liggéey pour Sénégal moo la ñor xeex li fi politiciens yu APR yi ak yu bennoo yi di def ci Sénégal ñëwal tàllal nañ la suñu loxo yaa xam mouvement nga yaa xam association de quartier nga yaa xam ASC nga képp ku jóg bëgg soppi li nekk ci goxam képp ku jóg bëgg bokk ci élection yii jàpp leen ne la grande coalition gëm sa bopp tàllal na leen loxo pour ñu àndandoo liggéeyandoo changer li fi nekk